gis ne euh, Sénégal dafa génn ci lu métti muy euh, mbas mi boo xam ne impacté na vraiment euh, lu bari ci réew sur le plan économique sur le plan sanitaire diego yu bari am si état bi jël aussi ay mesures yu bari président de la république injecté pratiquement 1000 milliards indi si ay réformes yu bari ay plans yu bari li mu si indi yoy euh, tay ñu bari xam nañ ko ñu bari xamuñu ko parce que ñu bari dañ naan wax plan Sénégal émergence le ëllëg et cetera mais bi mu indi li naan les euh, comment dirais-je encore le programme d'action prioritaire ajusté accéléré lan moy lolu moy conséquence yi nga xam ne ne ñi ni gis nañ ko bi mënd bi ñëwee il fallait que ñu xol pour retrouver un peu ben rythme li ñu wax une nouvelle croissance euh, bu bo xam ne Sénégal tollu na won foofu ñu ne nañu dajaloo politique yi élus, maires, population société civile pour waxtaan lolo déjà sur le plan national nous comprendre Nous notre département bi nga projet yu l'État, yu am impact sur am département sur ci population sur les ndaw sur les sur les gens, ci rapports, nous nañ ko ci rapport ko nga euh, am ay actes positifs impact positif am si mais am aussi impact négatif parce que nit soy def analyse aussi da ngay dem jusqu'au bout amul ben infrastructure routière buy connecté Rufisque Est bi nga xamné ne dafa frontalier même à Diamniadio pour yegg biir Diamniadio te mënoon na ci exemple yu bëri soo jógee Sangalkam wala nga jógee Bambilor bi nga xamné né dafa frontalier bok même ci pôle urbain de Diamniadio il faut nga ñëw ba Tëngéej pour war mëna mën a dugg Diamniadio loolu dafay won ne dafa mel ni Diamniadio c'est quelque chose de très spécial te nag nous sommes dans un département boo xam dañu am homogénéité au niveau du territoire projet yi aussi bëgg nañu euh, suñ koy indi fii si suñu département ndax nag suñu territoire la dañu bëgg aussi ñun ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nekkal fi population yi ñu ñu siy boole si conception bi ak si doxalin bi loolu lu am solo la damay wax toujours ne tey soo demee Richard Toll compagnie sucrière sénégalaise doomu Richard Toll yi ñoo fay liggéey soo demee Casamance projet yi fa nekk doomu Casamance ñu koy liggéey mais so ñëwé Tëngéej projet yi fi nekk dañ koy dégg rek lolu nak luñu wara xolaat a xoolaat la ndaxte nag euh, momu ñu si dëgg la état ko mom mais état kay joxé mais état limu koy joxé département Tëngéej la tëgg te waa Tëngéej war nañ sé mëna gis seen bop Tëngéej yag na initier ay projet toujours dama daan faral di wax lu bari nañu éviter bidonvillisation ville de Rufisque mooy problème connexion yi ma lay wax mais aussi que nous avons que de dëkk bu restructurer la loolu est yu bari fii am nañ ci ay idées le maire de Rufisque Est a fait fi projet Carré d'Or le maire de la ville de Rufisque a fait fi projet Dakar Gate loolu dafa waroon changer xar-xaru dëkk bi mais bañ ko porter porté, nañ ko fañ ko au niveau au plus haut niveau de l'État ndax yóbbu un dossier auprès du premier ministre de l'époque Mahamadou Abdallah John. mais la bataille ji amul suivi Pourtant, pourtant projet bu mel avons tey soo comparé à ma Dakar Fës bi nga à ne nañu benn la euh, projet est effectivement bu territoire initié, initié collectivité territoriale mais bu est accompagné par des bailleurs de fonds des chinois qui ont ne taxaw moyens financiers pour porter le projet mais parce que nous sommes très limités dans le partenariat avec les PPP euh, parce que PPP PPP euh, yi dafa am ay ay ay gàllankoor yu bari yoo xam ne ne dañ ko limiter au niveau des collectivités territoriales il faut nga am agrément de l'État il faut nga am caution de l'État euh, pour nga mën a dawal lool te loolu soxla nañ ko donc mu ñuy ñaan aussi li nga xam ne ne ay barrières la yu permettre collectivités locales yooyu war a mën a liggéey yi nga xam ne ne bëgg nañ changer seen xar-xaru kanam si wàllu économie si wàllu emploi si wàllu richesse ñu may leen aussi possibilité yooyu